bonsoir amis proches téléspectateurs u Kër Ndaanaan TV ñu ngi leen di nuyu di leen jëfal bu baax a baax ci topp bi nga xam ne yeneen ñu koy topp muy la chaîne de l'élégance muy KN TV di leen jaajëfal encore ndax nee naa leen sans yéen ñun duñu dem donc da ciy baax trop ñu leen di jëfal di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax tey nag ñoo ngi fii à la découverte de Numbe Épices biir Zac Mbao derrière Auchan bi nee naa leen lépp loo xam ne damuy transformation de produits locaux nee naa leen mu ci biir boutique bi nee naa leen boole épicier ne fii mooy chez Ndoumbé épices balaa ngeen ñu yeggali waxtaan bi rek nee naa leen chers téléspectateurs dañuy daagu rek àndandoog yéen daal di dugg ci biir boutique bi waxtaan ak moom tuuti laaj ko ci li nga xam ne moom lay yëngu muy métier bi macha allah muy épices transformation de produits yaa ngi ci biir voilà su ko defee rek damay ànd ak samay deux caméramans yu ñaawul yi muy Pape du ak Salimata nee naa leen ñoom ñooy borom KN TV donc let's ñu dem. salaamaaleykum Ndoumbé noo def. maaleykum salaam. yaa ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah waa tey nag tey la chaîne de l'élégance muy KN TV tey ñoo ñëwoon seex si la tey bu am ak yow découverte li nga xam ne produits locaux yi nga xam ne yaa ngi koy jaay waxtaan ak yow tuuti laaj la ci lu bëri ñu yaatal ko mu yaatu rek balaa loolu dama lay bàyyi rek nga nuyoon teg sa client yi ak téléspectateur u Kër Ndaanaan TV aca bismillah waaw comme ni nga ko waxee maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ah di di nuyu ñëpp ndax damay naan àdduna bi yëpp léegi dañuy seetaan ci lépp lu mën a doon macha allah kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax di wax ni man la Ndoumbé épices Sénégal di yëngatu ci ay épices ak ay produits locaux macha allah. <laughs> Mm-hmm. merci beaucoup Ndoumbé ñu ngi lay jaajëfal aussi ci accueil bu chaleureux bi ñu accueillir tey ak équipe technique bi su ko defee rek Ndoumbé li ma lay njëkk a laaj rek mooy lan moo la poussé à ce nga dugg ci métier épice bi inspiration bi nan la nan la ñëwee daal ci yow lu la poussé exactement. waaw mooy comme ni ma ko faral di waxee dañu bëgg lu naturel dañu bëgg indi lu bees te dañuy wax ne du lu bees ndax lu baax du lu bees macha allah hmm? lu baax dafa nekk loo xamante ni Euh, ñëpp ko war a bëgg ñëpp ko war a def rawatina loo xam ne si day dem si biir loo xamante ne sii dañ koy lekk macha allah war nañ ko xool saytu ko saytuwaat ko man dama bëgg lu naturel même si togg damay bëgg di togg da bëgg naa nag di créer même bi ma nekkee xale noonu laa doon def après waaw su may togg man ak samay morom léegi dañuy wax kan moo dàq togg gis nga man su may togg bu ñu ñëwee togg simple de damay ñëw def samay création jël sama géej ji di rosi di def genre bu ko defee ñu maa dàq ah, togg waaw man dama bëgg dama bëgg affaire waañ daal mm-hmm. mais li ma ci gën a poussé mooy que ne li ma gis euh, produit yi nga xamante ne si ñu ngi koy jëfandikoo merci beaucoup produit yooyu dafa nekk dafa nekk loo xam ne baaxul si wér-gu-yaram mm-hmm. du bu xale du bu mag dubu jigéen du bu góor mm-hmm. te soxna yi ni koy utiliser dafa yéeme parce que da ngay gis ku dem marché macha allah jël si siyoom façon bu nekk mu coppati ko dugal ci siyoom yóbbaale mais loolu du mën a lool sa njaboot la loolu moom a gën a poussé pour ma indi leen épice bu naturel indil leen douze épices numbe macha allah épice bu naturel ay gàncax yu naturel ñoo si nekk am goût am couleur ah doyut ma doole lañ sept épices pour faar bi moom sept épices bi moom dina fa toj incha allah mi ngi noonu <laughs> waaw numbe su ko defee comme nee kon inspiration bi daal dafa ñëw li la poussé pour nga dugg si c'est naturel daal lépp daal dafa naturel daal kon amul jëkkër amul yaay amul kenn ku la ci poussé da nga jékki-jékki rek am inspiration mu ñëw naturellement kon téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee nee na inspiration bi c'est venu noonu bëggoon nañ xam aussi Ndoumbé euh, say produits ba xam da nga koy bay fii ci Sénégal wala da ngay importer nan nan ngay def ba jot ci daal pour parce que gis naa ne fii y a différents produits bëggoon nañ xam produit yi fi muy jugee ba xam ne yaa koy bayal sa bopp voilà nga yaatalal ñu ko rek ñu comprendre aussi parce que da ciy baax aussi ñu xam vrai véritablement produit yi fi muy jugee Sénégal soxla na loolu tamit. Mm-hmm. waaw mu ngi noonu comme ni nga ko waxee nu mbay pi Sénégal benn entreprise la bu ndaw boo xam ne wax dëgg yàlla tollooguñu fenn fii amaguñu benn doole bi mais lépp loo xamante ni si dañ koy bayee si biir réew maanaam suñu xol ñun moo ñu mayul ñu di ko jéggaane man numbe man numbe épice man sama xol mayu ma benn produit boo xamante ne si am na Sénégal ma ne ko fi ñuk su ma ko neree def yàlla bu sama liggéey barkeel wallahi wala sama xol mënu ko supporter parce que bay dafa metti rawatina nag nga nekk sa biir réew nga xamante ni say doomi réew ñoom ñooy bay li ñuy te nit ñi naan nit ki li koy euh, faj mu ngi ci suuf bi mu juddoo nga romb fi fii bu dee bisaab nga romb ko nga jéggaane ko bu dee dugub nga romb ko nga dem jéggaane ko surtout sama dugub bi moom moo ma gën a inspiré pour ma dugg ci parce que dama koy faral di wax bu ñu ma invité wee parce que dama mës a jaay benn soxna dugub mhm. mu delloo ma dugub bi ma laaj ko lan moo tax mu delloo mu ne dugub bi dafa sew dugub dafa sew mu dafa sew dugub importé la bëgg léegi man si laa jëlee sama dugub bi vidéo bi nekk na vidéo boo xam ne su ma ko dugalee da ngay gis dafay bari abonné bari ay vie macha allah dama dama jël sama dugub defar ko ba mu set ba nga xam ne gis nga dugub beenee boo ko jëlee nga di koy utiliser nii booy togg soom bi wala daal da ngay ñëw rek nga togg su nekkee kay da nga bëgg a wal tamit noonu da ngay ñëw rek nga jël sa dugub nga wal loolu moo ma inspiré ci côté boobu ma defar ay sunguf defar sungufu mboq lépp loo xamante ne sii dañ koy bay fii si réew ma di koy defar ak defarin bu méttee mét ndax tey ba ma fekkee première fois bi ma toogee di defar sànqal ni ma ko yóbboo sa machine bi ñu walal ma ma toog jël sama ay tame yu différent di lay pour génnee sànqal bi mhm. moom boo ma gisee sax doo ma xàmmee samay xef sax dafa poussière nga gis koo bëgg sa tu le fais naturellement parce que waaw ñàkk de moyen peut-être moom moo ngi si parce que amaguñ doole pour e, am yenn machines yi moo gis boo tax suñuy liggéey day métti gis nga foire bi ñuy préparé noonu lay méttee ndax ñun li ñuy jaay ñoo koy defaral suñu bopp moom laay faral di wax gars yi ma ne leen fu ku bëgg liggéey mën nga ñëw parce que ñun li ñuy liggéey li ñuy jaay ñun ñoo koy defaral suñu bopp di ko jaay engros di ko jaay détail mi ngi noonu macha allah. kon ça daal produit yi ma gis ci boutique bi yëpp yëpp yëpp yow yaa koy defar ci sa ay loxo nga koy defee emblage beeg yëpp fa nga koy defee voilà mu ngi noonu maa ngi gis léegi maa ngi gis si euh, sa biir boutique yaa ngi def douze épices de Ndoumbe douze épices de Ndoumbe lan mooy base bi ak lan ak lan lan ak lan moo ne ci biir mélange bi douze épices yi yan ak yan nga dugal ci biir Ndoumbe nag yow da nga garaaw daf mel ni de. ah téléspectateurs yi numbe mii du du numbe mu ndaw de. Ah. <laughs> macha allah gis nga comme noonu waa douze épices numbe nekk na produit bu ma fonk. produit bu ma respecté sa samay client tamit wax dëgg yàlla noonu lañ ko bëggee parce que nekk na produit boo xam ne ku ko ñamaat doo ko wax kaay ñamaat ko te dafa naturel. amul lenn lenn loo xamante ni si def naa ko si gis nga léegi commencé nañu man mënuma comprendre daal nit ñi wax dëgg yàlla fan lañ jëm ak nit ñi yow bu fekkee ne dañ na ñoon léegi dañuy daw produit chimique yi léegi bàyyi nañ loolu yëpp li ñu ne ci lan lañ jëm léegi dañuy dem si épices yi gis man gis naa ko man numbe ma gis koo xamante ne moo ngi defar épices xam naa ko te bu dul moom tamit xëy na moom mën na ci am bañ a am yéene boobu mais am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy def léegi dañuy jël produit chimique yi defar ko ci seen bopp si biir day rax boo jëlee bi nga def ko ci te yow nga doon ko daw ci bouillon yi mais yaa ngi ci ba tey moo tax léegi man sama épice man bëgguma ci sax def xorom ndax peut-être produit chimique yooyu noonu ñuy def ci yeneen épices soo ñamee day xaw am goût tuuti bu am xorom moo tax man bëgguma sax def xorom pour ñu xam ne man li may def dafa naturel épice numbe épice bu naturel la ay gàncax yu naturel yoo xamante ne si tey boo ci feebaroon nii léegi ñu ne la ah boo si jëloon bii wala nga jël si bii macha allah da ngay mi ngi noonu jëlal mi ngi noonu léegi nag ma defal la ci épice boo xam ne nokkos bu wow la doyul ma defal la si nokkos bu tooy 12 épices numbe daal ak 7 épices numbe macha allah. waaw base bi lan la ci 12 épices waa am na am na am na poobar am na am na laurier am na am na am na affaire ñaareel ay épices yoo xamante ne xam nga yaa am gën a xam. Ah, ñaareel nga waa loolu la nag tamit. dégg ngeen ñaareel du moromu aawo yi de <laughs> yow ma aawo yi duñ <laughs> vraiment mu ngi noonu Ndoumbé vraiment c'est très intéressant boutique bi vraiment dafa intéressant waa Ndoumbé bëggoon nañ xam par exemple comme ñi ngeen di wax ne bouillon yi day des fois day am ay effets secondaires et tout ça yéen seen épices yi aussi maa amul aussi ay effets secondaires comme da ngeen taamu di wax ne bouillon yi baaxul ce sont des produits chimiques ñun tamit bëggoon nañ xam ba xam nag seen produit naturel yi nga xam ne yéen a ngi koy def yaa ngi koy yaa ngi ci yaa ngi ci yëngu muy épices yeeg ak ñoom seen ba a des des effets secondaires voilà bëggoon nañ xam loolu tamit. waa macha allah mi ngi noonu ndax yaakaar naa bu ñu gënoon sori ci émission bi ma wax la li ñuy jooy mooy la ñëpp di jooy muy euh, suñu état bi macha allah teg nañ fi ay nit yoo xamante ne ñoom ñooy saytu bu fekkee que ne yow da defar benn produit bëgg ko dugal ci marché bi amul neexal amul dugal amul génnee amul xamante déedéet dañ koy teg ci yoon produit bi dañ koy yóbbu labo ñu saytu ko xool produit bi ba xam baax na pour mën a dugg ci biir marché bi te macha allah man samay produit noonu la demee dañ ko yóbbu labo hmm, saytu produit bi ba xam sama produit bi macha allah dafa am ay kayitam moom douze épices Ndoumbé Uh-huh. kon mbokk téléspectateur comme ni mu leen ko waxee rek nee leen ay produits amul benn effet secondaire dañ koy yóbbu labo xool ko traité ko nu mu waree macha allah indil leen ko ci boutique bi ngeen jënd ko jëfandikoo te doo leen ci am benn problème voilà merci ci wax jooju nag yaa ngi ci wax ne ay produits bon ma bëggoon xam comme labo ngeen koy kii ndax yéen a ngi sukkandiwu aussi ci conservation produit yi maanaam date d'expiration yi kenn lay périmé yooyu noonu ba xam ndax yéen a ngi euh, ndax yéen yéen a ngi dox ci wala am na wala ndax produit boo gis boo fi munti jaay ba xam na am na date d'expiration. Mhm, waa da siy am kay parce que mënu see ñàkk tamit parce que comme ni ma koy waxee ñun bu ñu amul mat-matu def ko am na ñu am mat-matu xool ko. kon nag moo tax te li ñuy liggéey dañ ko bëgg a teg ci yoon macha allah moo tax yooyu yëpp dañ ciy bàyyi xel dañ koy euh, def ci suñu ay produits macha allah. voilà mu ngi noonu chers téléspectateurs ba tey seen découverte chez Numbe épices ba tey Numbe aussi bëggoon nañ la laaj. tamit ba xam na jongoma yi jeeg yi kër yi maanaam ñuy togg euh, voilà tey bu ñu ñëwoon par exemple seen borom kër wala dara aaye leen bouillon yi ñu utiliser euh, bouillon chimique yeeg yooyu yi ñu utiliser di ko jaay ci boutique yi ba xam na tey bu ñëwoon ne la sama borom kër tey numbe bëggatul ma utiliser bouillon yi te ceebu jën laa bëgg a togg bu xonk wala jaga wala yi suñu plan national yi et tout ça mu bëgg am teg-teg ni bouillon yi caf ka bouillon yi ni muy caf caf ki ni muy am ci ceeb bi soos bi wala soit suppu kànja beeg yooyu mélange yooyu ñuy togg suñu plan national yi ñu bëggoon la laaj ba xam ndax yow say épices aussi même goût bi la ak bouillon yeeg yooyu wala bosa bosa dàq. ah loolu kay xam nga ne moom laay wax moo dàq moom moo dàq moo gën a neex moo gën a wóor. moo gën a neex moo gën a wóor. macha mi ngi noonu parce que dañu am nga dañu nekk si loo xam ni euh, ñun fawuñu dañuy liggéey. te dañu gëm suñu président. ak suñu premier ministre macha allah fi nekk nii. ak foire bi nii damay def tournée si lu bari damay dugg fu bari damay xamante ñu bari damay waxtaan ak ñu bari te man yaakaar gi ma am ak gëm-gëm bi ma am man gis naa ni moom lañ am ci suñu président ak suñu premier ministre mooy li nga xamante ne si moom mooy consommer local produits locaux yi dinañ am ndam dinañ am ndam incha allah parce que moom dafa bëgg loolu tamit euh, son incha allah fi mu nekk nii amul fu muy dugg te ñoom amuñu yaakaar comme man yaakaar gi ma am ne ñoom dinañ ci teg seen loxo te ñun bu ñu foolu comme ni ma la waxee ne la ñu dañuy taxaw pour wane suñu bopp wane suñu ay produit dëggal li nga xamante ne sii moom moo nekk fii ci suñu biir réew mi parce que li ñu bëgg mu jóge fi moo fi bari ndax boo xoolee tey jus yi nga xamante ne si ñu ngi koy indi di koy jox suñu xale yi mais yéeme na tey da ngay xool benn jus bu 100 francs boobu ñu jël doo xam fan la jus bi jógee ah ñu ne la jus xaw ma lan la boo ko joxee sa doom mu naan li muy bu ñaangee da ngay gis euh, couleur làmmiñu xale bi naka lay changé wee colorant yeeg ngi noonu dafay changé mais pourquoi pas ñu jàppale ñu ñun ñi nga xamante ne bëgg nañ bàyyi nañ ñu lépp ndax comme ni ma koy waxee Nouvelle Vie Sénégal commencé wul fii mais lii nag mooy li nga xamante ne si laa bëgg nekk ba macha allah ba may génn àdduna kon fawu dama si nekk ak fulla ak fayda waa sama liggéey la pour dimbale sama askan pour dimbale sama réew parce que waaw sew sewaan ñi am problème mu yooyu noonu yëpp nga dàkkal ñu mi noonu nag parce que boo xoolee fii na ay épices yoo xam ne dafa naturel épices yoo xamante ne si tey bu fekkee kat da bëgg wàññeeku am na te da koy lekk lekk épice naturel amul ay lii amul lële nga bëgg tey sa graisse bi dañ macha allah mi ngi noonu tey xoolal euh, soxna yi comme ni nga waxee léegi nga bëgg a togg sa ceebu jën bu njëkk ba da ngay dem di jëli ay ay fël-fël wala ngay jël ay euh, yenn euh, bouillon yoo xamante ne si dafay am luy xonqal Euh, non seulement xamoo sax li koy xonkal nuñ koy xonkale mais nga ñëw tey si Ndoumbe épice dalay jox ay produits épices naturels yoo xam ne sa ceeb day xonk macha allah dama koy wax soxna yi nee naa leen les kii euh, les bion nekkul moom moy neexal toogu mais jàpp nañ ne loolu moom mooy neexal toogu dama leen daan wax ne leen dama ne xorom si biir ciin ba pare rek ah mooy base toogu mooy cu daal mooy cu 32 boulettes. voilà xorom si biir cin mooy base togg mais soxna yi léegi dañ bu ñuy ndugg suñu sañoon sax xorom du ci bokk daanaka parce que dañ ko ñàkkal fayda te mooy lu am solo nag ci cin ndax su ci manqué da nga koy yëg léegi dañuy jël place xorom def ko ay bouillon ba mu saf saf saf saf ba yow bu ko sexee ñam bi rek automatiquement da ngay xam ne lii bouillon kese la mais loolu baaxul sa wér gu yaram baaxul sa wér gu yaram borom kër sa njaboot moo xam da ngaa am yaabooy bu nekk si kër gi wala benn maam macha allah baaxul si ñoom kon soxla yi nañ dellu si waat ci li nga xamante ne si mooy les produits naturel. ñu ñoo ngi nii di jéem di créer te ñu ngi si incha allah ci suñu ay projet te bu ñu yàlla dimbalee ñu am li ñu bëgg ah tayit ñu teg ñu loxo incha allah ñoo ngi ci ñu ñàkk ñoo teg loxo ñu ngi si kon nag dañuy fekk si lu ñu nekk rek amaana buux mu dem loolu lay bi bëgg nañu ah, ñu ngi créer suñu association boo xamante ni si suñu ay projet dañuy jàngal soxna yi nan la ñuy defee jardinage seen biir kër di defar bu ko defee ngay am sa épices yu ndaw ndawaan say épices yu ndaw ndawaan sooy togg boo gisee numbe épices ak boo ko gisul yëpp da ngay mën a dem dindi say épices togg macha allah sa ci neex mu ngi noonu waaw. macha allah kon daal ça veut dire que ñi nga xam ne bëgg nañ togg ceebu jën Penda Mbaye wala suñu ay plan national bu ñu ñëwee ci yow incha allah am nga ay ay astuces yoo xam ne def nga ko ci biir épices yi bu ñu ko toogee teg teg lay doon du ute dara ak bouillon yi ñu tàmm di utiliser. Oh, mu ngi noonu xam nga nit ki soo nee ko bàyyil dara naan jàppal si dara te man su ma nee leen bàyyi bouillon yi dama leen di jox lu koy remplacer. waaw yow xam nga ne da ngaa <laughs> da ngay tooñ da ngay tooñ. <laughs> non ma da nga jonge ñaareel yi dañoo feros de. <laughs> dégg nga day tooñ de day tooñ dégg bu leen ko déglu day tooñ. macha allah ba tey ñoo ngi seen biir à la découverte Ndoumbé chez Ndoumbé mais Ndoumbé gis naa aussi euh, ay euh, lu ñu bind fii ci kaw maanaam nokkos royal waa lii ñama-ñama bii moom ba nga ko créer yàgg na wala wax ñu ci tuuti boog ñu xam. mooy nokkas royal bi may gis. nokkas bi mu nii de gis nga balaa ñuy ubbi place bi dañ doon jaay euh, dañ doon def nànk-nànk comme am naa beneen place fii mooy minima sopp na bi foofu lañ nekkoon di di exposé suñu 12 euh, épices numbe bi kese lañ fa doon lañ doon defar di koy jaay nit ñi di ñëw di koy jënd intéressé wu ci moom léegi après si lañ defee nokkas léegi benn. benn korité la woon foog naa su ma juumoon waaw su ma juumoon benn korité dama avant korité bi dama defar nokkas bi léegi bi ma defaree nokkas bi gars yi jënd ko ñëpp naan nokkas bi nokkas bi nokkas bi nokkas bi ba defarloo waat ma ko ah ma daa di comme man dama doon dem nooto di ñëw damay indi ndugg yu bari. nga dem fan. nooto nooto fan mooy nooto. si nooto xaw na sori tuuti côté toor la ba ngay passé toor mais dafa sori foofu dañ fay wutee ndugg en gros. léegi nag si laa ñëwee ci guddi gi noonu ma daa jinne waat bagage yi toog composé defaraat sama nokkas gis ne gars yi bëgg nañ nokkos bu baax a baax a baax même nokkos bi tamit comme ni ma la waxee moom tamit saytu nañ ko dafa am ay kayitam xool nañ nokkos bi xam nañ ne macha allah dafa baax. Mhm. macha allah kon nokkos royal bi fépp lay dem. maa la wax li nu mel. fan ak fan la gën a saflee ci nokkos royal. foo ko dugal mu dem. mais nag dugal mu dem waa mais man moom préféré wu di ci togg ay ceebu jën. yan nga ci préféré. waaw ay euh, mën naa ko def ci euh, jën mën naa ko def si ginaar mën naa ko def si yàpp mais pour togg ceebu jën moom carrément am na nag sama ay client wax dëgg yàlla nee nañu ma. yan pour mu dem si ceebu jën. dañu defar nokk si ceebu jën. ñun nokos ceeb bu weex sax ak ñakos ceeb bu xonq dañ ko defar dañ ko séparé dañ la defaral ceeb bu xonq à part defal la ceeb weex à defar la roof pour euh, kii bi pour jën yi daal lay defar nokos royal bi moo xam ne nee nañ si lépp lay dem mais man nag maa koy defar mais préféré wu ma ko foofu parce que xam nga lu tax parfois bu fekkee dangay ngay togg ceeb bu xonq sax tan tan mën nga dindi sooy baaral tuuti nga laal si mais bu nekkee dangay ngay togg ceeb bu weex am na ñoo xamante ni guu poobar mm-hmm. bëgguñu ko am ci ceeb bu weex parce que da leen di xaw a jox Euh, ceebu yàpp tuuti loolu kese moo tax ma ni man préféré wu ma ko si côté boobu mais. kon pour affaire ay ceeb yeeg yooyu épices am à part la. boobu noo ko tuddee. déedéet douze épices numbe. kooku comme li may wax ci nokkas bi moom amu ci douze épices numbe fépp lay dem. Ah, ah, douze épices numbe fépp lay dem su ne boo ànd moom ba jëm ci ceeb. danaan la bàyyi ma xaar tuuti ba nga baaral. gis nga soo baaralee ba coppati tuuti def ko ci ceeb bu doy waar ngay am naa ci wutal sama yaay de <laughs> mi ngi noonu <laughs> mu ngi noonu su ko defee rek numbe aussi gis naa aussi ci biir bërëb bi boutique bi gis naa aussi yemoo rek ci ay épices affaire yooyu noonu gis naa ne maa ngi fii gis aussi des bouteilles de jus naturel yoo xam ne yaa koy defar personnalisé ko des jus de bis des feuilles de bisaab yoo xam ne mu ngi fi biir boutique bi ay ñoom maïs ay ñoom euh, araw yooyu yëpp mu ngi fi daal euh, produit fii nga koy defee yëpp nooy def ba noo def noo noo def ba ba yor yii ni daal ci biir boutique bi foo koy foo koy foo ko amee fan nga ko saytuwee vraiment ba am. mi ngi noonu ndimbalu suñu borom rek te wax dëgg yàlla Ndoumbe Épices Sénégal xëyul rek toog ubbi place. waaw dama am ay jaar-jaar dama jaar fu dama liggéey liggéey yu metti dugg fii génn fii ah. damay fanaan parfois dañuy fanaan wallahi wala azim dañuy fanaan di liggéey ba bërsët wecc wecc yàlla seede na ko rawatina bu ñuy defar ji surtout bu ñu waree defar ji nii uh-huh. xam nga jaay da bëgg mu jeex mais ñun suñu ji bu commencé jeex rek dañuy tiit waaw ndax tey peut-être xëy na suñu amoon moyen yi nga xamante ne moom la ñu war am yëpp am machine yi xamante ne moom la ñu yëpp suñu waree defar ji du ñu tiit mais suñu waree defar ji instant yi maanaam bu ñu ko commencé tey suba lay pare dañ ciy nekk ba suba wallahi wala azim dañuy dem dañuy fanaanee liggéey pour ne defar suñu ay jus yow say araw yii nii ak bisaab beeg yooyu noonu yu weex bu xonk beeg buy bi foo koy jëlee ak café Touba bi seen naa ko fi waaw mi ngi noonu nag léegi balaa may yegg foofu ma doole la jus bi tare jus bi am nañ treize parfum am nañ bouteille yu mag am nañ bouteille yu ndaw comme ni ngay demee jënd sa canette canette boo xamul fa la jógee mm. waaw et Iran boo ko ci de ak ak Rani nag wax dëgg yàlla. <laughs> yaa ngi defaale publicité de. samay waa kër la ñooñu bokk ñu si macha allah waa ay boissons yi naturel la mu ngi noonu da ngay jël euh, bu fekkee da nga am xew. boo ñu commandé bi dañ lay defaral bouteille yu ndaw yi mooy comme ni ngay demee rek nga jënd sa canette macha allah defal bindal la si nag loo bëgg de ñu bindal la ko si événement bi nga am loolu lañ la siy bindal macha allah bouteille yu mag yi tamit am nañ yooyu yëpp te luñ ciy defar duñ ci def ay produits. ay sachet ay yooyu noonu naturel la ñuy def buñ la waxee buy fraise dañuy dem peese fraise bu doy macha ñëw mixé ko defal la buy fraise bu doy waar. bu dee na jinjeer la jinjeer citron ananas duñ ko ci passé bu dee da ngaa xam daal ak liggéey daal da nga ko xam. boo bëggee mu lew tamit yow di nga barkeel de incha allah day da ngay barkeel sax. ama liggéey bi dafa métti soo ko bëggee boole ak ay tappale Euh, day xaw a metti comme fi nga tuddu léegi muy café Touba bi café Touba Ndoumbé macha allah la café Touba bi tamit li ma gën a inspiré pour ma dugg ci café Touba mooy lu ci ëpp damay gis ne café Touba duñ ko bàyyi mu naturel hmm. dañuy jël yeneen waaw merci beaucoup dañuy jël yeneeni produit di ko si boole euh, pour gën a sakkanal seen seen seen seen production man giseewu ma ko noonu parce que dama gis ne lépp loo xamante ni sii dafa lépp loo xamante ni si nit ki daf koy dugal si biiram rek dafa war a naturel macha allah macha allah léegi Ndoumbé ni ma gis produit yi ci biir boutique bi macha allah bari na lool ba ñu ko sa saytuyee ak sama cam euh, caméraman ni léegi su ko defee rek Ndoumbé est-ce que yow tamit yaa ngi xalaat aussi euh, comme par exemple di exporter fii nii Sénégal di dugal di yóbbu feneen projet yooyu ma bokk na ci. bëgg nañ bëgg nañ parce que xam nga lépp nank nank la àdduna soo bëggee xëy rek lépp sotti wax dëgg yàlla du demee noonu da ngay def nànk-nànk rek macha allah ñoo ngi si ñoo ngi si ñi ngi xalaat te it soreeguñu nag macha allah mais instant bi li ñu gën a li ñu li ñu bëgg a concentré wu mm-hmm. mooy que ni soxna yi comme dañuy tasaaroo macha allah di dugg ci supermarché yi di dugg feneen feneen ñu pousse produit foofu ba mu tasaaroo si fii ci suñu réew ba pare ñu doog koy génne nag ci réew bi incha allah. macha allah mu ngi noonu la nee naa leen ndumbe moom ku ko topp nee leen di am wér gu yaram euh, seen naa fi ay duute xam naa après incha allah caméraman yi ma àndal dinañ ñëw gis fii kooraay bi d' kooraay ma yaakaar ne c' ñun les les êtres humains. Hmm, léegi ah sama gars yi laaj leen supp bi ma indi woon foofu ndax am am supp bi neex na. ah da di woon supp télé ba. ah man de yëgu ma ko. kooraay supp kooraay. la chaîne de war nañ maa def lii. waaw baax la. jatu fashion moo def jatu moo def loolu. kooku xaaral ma ñëw <laughs> allah togg nañ ci supp supp bu doy waar supp bu doy waar lañ ci togg moom kooraay bi ba pare dafa baax si fatiguement. dafa baax si fatiguement ba pare mooy grain coton moom mooy kooraay macha allah mu ngi nii dañ la ko walal ba mu nooy parce que man balaa ma koy defar man Ndoumbe Épices dama daan jëndi kooraay marché su ma ñëwee raxas teg dëbb dëbb dëbb dëbb ba sonn segg parce que man dafa ma koy jaral parce que sama supp dafay naturel ba pare dafay am goût bu neex ba pare day faj fatigue su ma bëggee sëñ bi moom tooy bi wàcc rek man damay dem jël sama kooraay léegi nag comme man dama bëgg lu yombalal jéggi seen liggéey dama ko wal ba pare léegi da ngay ñëw rek yow euh, Euh, quantité bi ngay li ngay togg foofu lay dépendre ñu wax la ni nga koy jëfandikoo waa jeex na tàkk da bu ko defee da ngay xooj mm, euh, dindi coton bi teg ne jël ndox bi ñu lu est-ce que xam nga ni doo soxla ma dooreel ko wala ma des ci lii pour couleur bi couleur bu rafet ngay am ndox bi kese ak ndawal bi rek couleur bu rafet nga am maa am nga li ñu mooy mooy lu ñuy dooreelee ceeb bi dama la ko fàttalaay sànq am nga ko ak li ñuy xonkalee ceeb au lieu ñu utiliser ay bouillon yu rouge di ko def nan la tudd wax ñu ko vite fait parce que nee naa leen temps bi fu mu toll nii tënk nañu mënuñu wax lépp daal vraiment. waaw comme euh, bu fekkee ne pour ceeb bu xonk bi la am nañ paprika. dafa riche en fer. Mhm. paprika macha allah xeeb moom man dama ko utiliser lu bëri. Ah, gis nga mi ngi noonu gis nga paprika bu ma la ko joxee nga def ko ci sa ceeb yàlla boo jël sama nokkos bi boole ko ak danga fay toj. nee naa la douze épices be fu mu dugg doo doo reer. doo wëri leen lépp a <laughs> Aliou Ndoumbé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax su ko defee rek euh, damay ànd ak sama caméraman yi léegi rek incha allah ñu euh, jël ay images fii si biir bi pour am ay illustration euh, téléspectateurs yi mën a comprendre aussi ak client yeeg yooyu su ko defee rek Ndoumbé nee naa leen boutique bi yàññi na yàññi joo xam ne noflaay nee naa leen sud tiga dégee nee naa leen sump lépp ci biir boutique bi voilà mu ngi noonu léegi rek incha allah Pape Doudou ak Sali di leen jël lépp su ko defee rek dama lay bàyyi rek vite fait nga tàggatoog téléspectateur ak aussi exposition bi nga xam ne yaa ngi ko digmal ba ko def nga waxaale date bi nu muy demeeg yooyu ah voilà nit ñi mën a ñëw bànneexu ci sama raq yi ñëw <laughs> samay mbokk aussi ñëw na xam naa ne épices moom dañu leen dafa intéressant lool lool lool te baax na fépp aussi ale let's go waa mi ngi noonu comme comme ni nga ko waxee waaw balaa ñuy tàggatoo te mënuñu tàggatoo te waxuñu ci foire bi waa mi ngi noonu dañuy def exposition vente pour deux jour mooy euh, le 8 ak le 9 mars incha allah mu ngi noonu fee ci jardin kii ba mairie bu Tëngéej bi en face waa en face euh, Sonatel bi foofu lañ koy defee day te li ci gën a neex mooy du ñu yem ci li ñuy wax rek jaay bi rek ñoruñu jaay bi dafa am lu muy àndal mooy lii dëggal ak liy jëmal lii nga xamante ne si moom lañ nekk muy bay di dundee dañuy exposé ci óolu maire bi suñu paree dañuy jël salle des def fa conférence boo xam ne dañuy waxtaan ci entrepreneuriat ak les produits locaux képp koo xamante ni si macha allah yaa ngi yëngu ci domaine boobu dañ lay invité nga ñëw bu neexee yàlla suñu borom. d'accord nee naa leen jigéen ju am jom la nee naa leen jigéen ju am fulla la jigéen ju ñefe ñefe ñefe bu baax sax nee naa leen da koo jël rek def ko ci xolam ndax waxuma ko sax nit ñee ko wax tarkaal la jigéen ju am jom nga bu nangoo liggéey voilà su ko defee rek euh, date bi nga joxe aussi numéro boutique bi ñi nga xam ne aussi bëgg nañ xam fu numbe nekk numéro téléphone bi ak aussi la date euh, bi nga xam ne mooy exposition bi fii nga wax ne yaa ngi ko bëgg def fii voilà ñu lay ñaanal rek incha allah yàlla na ci yàlla teg loxo incha allah lépp loo ci bëgg rek suñu borom defal la ko voilà mu ngi noonu. mi ngi noonu kon comme niñ ko waxee woon cinq le 8 la incha allah le 8 ak le 9 bu neexee yàlla mooy samedi bii di ñëw nii ak dimanche bi bu neexee yàlla suñu borom ñi fay xaar ñëpp nag. waaw wax dëgg yàlla ku dégg lii daal sa invitation moo noonu te boo fa ñëwee di nga fa fekk ay produits yu naturel ah di nga fa fekk lépp loo xamante ne si Ndoumbe Épices Sénégal liggéey na ko dina leen ko tegal foofu araw yeeg ñoom sunguf ak ñi bëgg a ruy ak waaw ñoom noonu noonu <laughs> ak nokkas ak laaj yi nga xam ne dañ ko mixé defal leen ci jinjeer ah ak ñoom kooraay xam nga il faut ñu faj tooy yi tamit waa hmm? mi ngi noonu <laughs> waaw gis nga mi ngi noonu kon daal foire ba macha allah dina am solo waaw dina riis dina gan bu neexee yàlla. Mhm. allez merci beaucoup merci beaucoup numéro bi joxe woo ko de. dëgg waa ba pare tamit ah war a faut ma remercier tamit ñi nga xam ne ñoom laa fi nekkal sama équipe ah borom place bi moom fi mu ne bu ma la gane la woon léegi mu ne ma fayal tànnee ne gaale moom daal loolu laal bu ne la fayal mu ngi noonu daal di remercier bu baax tonto Saxir sama directeur ah di remercier Aram Kumba ak ñi nga xam ne ñoom lay àndal si liggéey bi yëpp biraan cag-cag macha allah bàyyiwuma leen ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu waaw di sant bu baax nag ki nga xam ne mooy borom lépp muy sama yaay waaw maman ami ba ba ngin gineew ziar naa ko bu baax a baax ak sama alaaji bi dafa dem màkka waaw ma koy ñaanal tamit lu waa gis nga lu fa ñaan yàlla nanga ko mu dem jaamu ah ñëw ak jaamu ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fa ak ay magam ak ay jigéenam ñoom ñëpp daal ziar naa nag samay mbokk bopp gis nga ñoom laa mujjee maa xana baate xanaa mais yéeme na <laughs> waaw waaw mooy 77 527 20 54 245 ci sortie 9 bi derrière Auchan bu Zac Mbao macha allah. merci beaucoup Ndoumbe ñu ngi lay jaajëfal bu baax ak sa équipe yi nga xam ne ñoom ñoo lay accompagner ci liggéey bi ba tax mu jaar yoon. mbokk yeeg xarit yi comme ni ma leen ko waxee nee naa leen ci biir boutique bi li fi nekk yëpp dafay yanj nee naa leen lépp loo leen soxla rek muy ay épices nee leen. Euh, bisaab yeeg lépp loo leen soxla rek ah muy produit naturel daw si leen gaaw ngeen ñëw seet si ki nga xam ne moom mooy numbe épice ñi nga xam ne aussi à l'extérieur nee naa leen aussi kenn fàttewu leen ndax nee leen tarkaal la boutique bi aussi dañuy def ay livraison yoo xam ne biir bitim réew fu waay mun ci nekk ci bitim réew nee naa leen soo leen ko contacter ci numéro bi nga xam ne moom lañ leen di jox mooy numéro numbe nee naa leen tarkaal la ñu livrer leen seen produit ba foofu te doo leen am benn problème te leen wax aussi ngeen xaar exposition 8 ak le 9 chers téléspectateurs donc à ne pas rater exposition bi ngeen daw si gaaw ñëw ndax promo aussi am na ci biir boutique bi donc ñu ngi leen di jëfal mbokk yi ba beneen yoon incha allah seen prochaine découverte ñu ngi ciy dox dinañ ci ñëw incha allah merci beaucoup